kirok bi borom Touba di tagoto fa mbake bari ngir dem sa tukem ba dani ges njabot gi nilen denk na len sen bay cierno daldi wax borom daru niko cierno Cerno na la njabot gi daldi ne ko nak Cerno munu mbake munuko rik na nga muñ niko cierno Cerno munu munuko rik na nga gore ne ko Cerno munu mbake munuko rik na nga am jom wolof njaay nak day wax denkane ka nga wóolu